à la gare Dakar. Nous insufflons à chacun de nos pas une parcelle de notre cœur pour révolutionner le transport ferroviaire au Sénégal. Le TER en marche, c'est une fenêtre sur le passé et un regard vers l'avenir. chers internautes, bonsoir à tous et à tous et bienvenue dans votre émission Rond-Point. Deuxième numéro de votre émission, encore une fois, Rond-Point. Comme nous le fait à chaque fois, comme à l'accoutumée, nous sommes passionnés de vous servir, mais également nous, sommes passionnés de vous donner du bien et de vous donner le maximum. Alors reste coaché, nous euh, euh, également c'est pas aussi japon dali daal di ñun donc day bax ñunit euh, ñu daal di bàyyi ñëpp daal di nga internautes yi mais également daal di jap jàpp yéen ñi nga xamni ni ñuy safo yéen yi nga xamni suivre sen site bu reuy bi di Yegle TV comme à l'accoutumée comme ni ñu koy baxo di défé ñu ngi ak euh, invité bo il est jeune non seulement également il est engagé euh, waye jeune le bo xamante par pas récemment le lancé li nga xamni mouvement mouvement bo xamni mom na mouvement point fort point fort nak bu ko ni ce sont pour les hommes forts aca di leen ci ñëw ak yeen léegi rek ñu dal ci and ak mom ci seen émission mais bu len faté également di abonné wu bu len faté di partager li nga xam ni di lien yi bu len faté aussi di commenter ngir ñu xam seen position ci émission bi nga xamni ni lañuy amal mais partage aussi day tax euh, ñu sawar ci li nga xamni mom lañ fi pour vous servir pour vous donner du bien euh, laataa ñuy xotal damay jox sama invité mu dal di nuyonté ñi nga xamni ñoo di d'abord fort fiñ ñu toll ngi lay xaar bi Ousmane Senghor lay dalal ci seen émission point fort ñepp ngi laajte Ousmane Senghor euh, euh, mouvement point fort euh, ni muy doxé mouvement point fort parce que non bi non seulement <laughs> laataa ñu ñëw ci nom bi d'abord alaykoum Ousmane. Ahmed maa ngi lay nuyu di nuyu képp ku ñuy seetaan à travers Yegle TV donc di nuyu Sénégalais yi kilifa diine yi kilifa aada di nuyu aussi euh, ñu ne ci hôpitaux yi te di bàyyi xel bu baax a baax. Mm-hmm. di ñaanal yàlla yi mm-hmm. di nuyu aussi ñi nga xam ne ñu ngi ci prison yi di leen di ñaanal yàlla génn leen ci xat-xat yooyu ba ñu mën a génn foofu nekkaat ci seen yitte. amiin ndaxte tolof tolof moom li nga daan dund gu sottee bu lu ne xëj na ci. Mm-hmm. di la nuyu di la sant bu baax a baax.

occasion bi dinañ profité ci li nga xamni euh, modi émission bi tay ñu def lenn euh, d'abord dama bëgg tay nga wax Sénégalais Sénégal. kan moy Ousmane Senghor kan euh, tay parce que bu nee Ousmane Senghor point fort mm-hmm. man xamna Ousmane Senghor personnellement mm-hmm. xamna Ousmane Senghor beneen Ousmane mm-hmm. mais le président Ousmane Senghor président mouvement Euh, point fort. Ah. ban kan kooku tey bu ñu doon wax kan mooy Ousmane Senghor ci lu gàtt. yoo xam ne sénégalais bu ñu déggee loolu dinañu xam ni kat kii jeune la boo xamante ni euh, référence la tey lan nga ñuy wax kan mooy Ousmane Senghor d' abord. bon Ousmane Senghor ci ci ñaari anam la. Hmm. Ousmane Senghor en tant que jeune. Hmm. ak Ousmane Senghor président mouvement point fort. d' abord Ousmane Senghor en tant que jeune. waaw Ousmane Senghor man maa ngi nekk jeune euh, dëkk ci réew mi. Hmm. Euh, sama yaay mi ngi juddoo mi ngi moom waa Ziguinchor la sama papa nekk waa Fatick. ma nekk jeune nag di jàng ba yegg ci benn niveau bi niveau euh, ba terminal ma ma génn dem defi li nga xam ne moo di école nationale des arts. dem jàngi lépp lu jëm ci wàllu animation. ah, ah bi ma fa jógee nag ma bàyyi euh, former sama label. label bi mu ngi tuddoon art. art production di mm-hmm. yëngu ci walu musique di yëngu ci walu social mm-hmm. dem ba ci yagg créé wat benen benen association bu tuddu graine d'espoir mm-hmm. di jappalé xalé ak jigéen ñi donc biñ démé ba ci biir nak affaire bi jël benn forme ñu jëlé benn forme ñu commencé di génn réew mi di génn di dugg ci biir réew mi di di seet askan wi di waxtaan ak ñoom ci dañ dem ba ci biir nak né li nak il faut am benn affaire buñ koy bu ñuy teg après ci lañ waxtaan ak ay kilifa yu bëri. Mm-hmm. pendant un an nag. Mm-hmm. ñu ci woon di waxtaan di di xool ay kilifa di def ay ay échange ba ñu trouvé ne léegi dañuy taxool benn mouvement. Mm-hmm. mais mouvement politique. bi ñu waxee politique man j'étais pas d'accord ndax politique bi nekk ci réew mi man bëgguma ko. ñu ne kenn ku ci nekk ci li ngay yëngu yaa ko mën a rafetal mais yaa ko mën a salteel. donc je me suis dit ok il y' a pas de problème mais comme je suis quelqu'un boo xam ne wax dëgg fa veux dama bëgg lépp lu jëm ci social dama ko bëgg. donc euh, ma ne léegi dañuy def mouvement politique mais nag politique de développement la ñuy def. lu def comme politique bi nit ñi nekk fii di di ŋàññante xasante xam nga dem ba yàq nit ñi léegi transformer jeunesse bi transformer Sénégal qui est Sénégal ci ay minorité de personnes yoo xam ñoo teg loolu donc ma ne donc man lu mu bon bon war naa cee mën a bay sama waa ñëw ak ñi may àndal ñu am lu ñu indi ñi ñu gëm fekk si ñu ci loolu nga xam ne moom lañu indi je pense que de fur et à mesure dinañ dem ba dinañ atteindre suñu objectif ci lu bëree bëri donc Ousmane Ousmane Senghor la bu def jeunesse am def léppam xale bu bu lool def yëpp mais nag gëm sama bopp ah, donc terrible xar day weesu mote <laughs> xar xar day weesu mote am na am na yoo xam ne boo fa tollee euh, xam nga jamono day dox mm-hmm. tey ñun sunu âge donte ay xale lañu mm-hmm. tey ñu ngi ci ay quelque mm-hmm. donc jamono yi ñuy am di terrible di am 25 ans wala di am ay 22 ans am génération léegi vous ñu conscient sax ku am 22 ans sax warut a terrible. ok parce que jamono moo ko laaj. jamono moo dox. moo dafa dox ba nga xam ne nit ki boo amee vingt ans sax wala dix huit ans responsabilité direct mooy dugg. d'accord dafa war dugg. d'accord nga changer mutation ci ci lépp day day am. d'accord ok atia euh, mi ngi noonu ci début wax bi dama dégg nga ni def nga école des arts. Mm-hmm. tout ce qui est animation bare taxawal ca label. Mm. Euh, label bi dañoo doon def musique. Mm-hmm. ak ak lan encore. musique def. social production social d'abord ci musique boobu. Mm-hmm. Euh, daanaka mën naa ni dama la xam Papa Thione avant Papa John, amna artiste, artistes bari D'accord. mais man Papa John la xamal. Mhm. donc ces relations avec Papa John, mhm. lan mo leen bolé woon. Thione ñi nga xamanté bi may def nuit de solidarité pour l'hémodialyse et les insuffisance rénale. Mhm. jappalé ñi amé feebaru rein. ma àndoon ceeg Assure. mo nek association sénégalaise des hémodialysés et des insuffisants rénaux. d'accord je pense qu'il a njëkk dem Touba tok ak Seigne Bass Abdou Khadre. ma ko damay def guddi gu mag musique la. damaa bëgg nga woote salle bi fees gars yi di di di àllu foofu mais xamun woon li ma bëgg a wax mhm. ñeneen lu tax ma togg ak sëñ bi di wax loolu mhm. mais sëñ bi nekk koo xam ne wax dëgg fa yàlla ku yaatu dal li mu dégloo li ma ko wax ak ñi amee feebaru rein jalis bi ni mu méttee mhm. mu lancé ci message ba pare boole maag sëñ Cheikh Abi ma dem foofu kooku tamit lancé waat message Touba dañoo organiser wu ba nga xam ne tey ni mu nekkee porte parole de xalif man ci laa xam ne am na koo xam ne ci biir famille bi moo yore wàllu santé. ñu demal lépp lu jëm ci wàllu santé. on peut dire gouvernement la gouvernement demal seeti seen Cheikh Abi ma dem seeti ko waxtaan a ak moom moom it mu lancé message ñu def une nuit de solidarité pour jàppale ñu amoon feebaru rein foofu li tax ma ko doon def mooy ñu ba dañuy wax ay paludisme sida mais xam nga ne. insuffisance rénale moy moy fièvre bi nga xamné bala mu lay ray da lay ruiner ba paré mm-hmm. sok mm-hmm. la la manam du feebaru baadoo la mm-hmm. fièvre la bo xamné bu la ko yalla tegee même bo nekkee milliardaire sax bala bala ngay dé say milliards yépp ay jeex ba paré nga soog a parce que li laaj parce boko amé di nga def 3 fois dialyse ci semaine bi imaginer ko teud 8 heures ba midi ñu raxas sa nga def dialyse te boo ko defee lundi da ngay ñëwaat mercredi def ko mercredi da ngay ñëwaat vendredi te sa séance bu ci nekk bu fekkee ne ci privé bi la jamono yooyu 60 000 nga doon fay. séance boo def 60 000 nga def ak garab yi ngay jënd léegi bu fekkee public bi la doo fay. d'accord public bi doo fay mais public bi liste d'attente la amaana weer bi benn yoon nga ci nga ci def dialyse te doo fay donc. li ngay toog un mois doo def dialyse xam nga sa bakkan nga ci xottu gerte. Mm. te loo xam ne trois fois nga ko war a def ci semaine bi. tu es obligé tey nga nga dem ci privé bi pour mën a def dialyse fay. mais nag politique gouvernement bi wax dëgg fa yàlla def nañ ci ay jéego Marème Faye Sall bi mu ñëwee en tant que première dame moom def defoon na ci euh, centre de dialyse bi gars yi defoon zone de captage mu may leen ay machine u dialyse dialyse may leen groupe groupe defal leen lu bëree bëri ci loolu may remercier monsieur ñoom euh, Sayer ñoo ci newoon mm-hmm. ak euh, benn paa bu nekk bu dëkkoon parcelle mm-hmm. paa bu yaruwaay te teey am yërmande teg ci mm-hmm. bu liggéeyoon waan ba ba wàcc li ci li des ci journée am yëpp day dox di xool nan lay jàppale jalise yi jalise yi ci guddi googu nga xamante ak Papa Thione bon bi ma koy def boobu boobu fekkoon na Thione xamante woon nañ bu yàgg ok ñu doon def ay programme bu amee ma boole kook benn nit ne ko demal coon bu ko soxlaa ma boole kook moom ñu xamat mais séqal séquñu woon ay demlante bi mu nekkee ci jafe-jafe nag ci nuit de solide boobu ma defoon dama jëloon ay kilifa yu bari ma ne dama leen di sargal ci guddi googu mu nekk ci ay jafe-jafe man it ma ne ko dama lay sargal mm-hmm. mu ne ma ah, ma ne ko ma explique ko fekk ko camp pénal ñu waxtaan waxtaan waxtaan ci lu bari ba bi ñu waxtaan ci guddi ci xat-xat yi. waaw ci xat-xat yi. mu ne ma ah loolu de moom lu rafet la. mu ne ma man de bu fekkoon ma génn dinaa ca teew. ma ne ko bala ñu koy def di nga génn bu ci yàlla àndee. nga teg ko fan. moom nit nit da mën nga wax sànni sax mais li nga wax di sànni sax yàlla ne ko rek. sa ngëm-ngëm nga ko tegoon quoi. bon yéene gu ma amoon la rek. mais du du du du ci ci baatin laa ko teg wala dara. ngëm-ngëm ak yéene gu ma amoon. xam nga Sénégal la booy wax dafa baax. non parce que il faut ko. non non yéene ma amoon la rek. d'accord yéene rek laa amoon. d'accord wax ko loolu parce que comme mu ngi. ci benn bërëb dafay dafay dafay baax ñu soulager leen day baax. Mm-hmm. ma fekk ko ci camp bi. ci ci ci Cap Manuel bi jamono yi détenu fa nekk yëpp moo leen doon jàppale. añ daraan jot mu bokk ak ñoom añ di leen defal lu ne. xam naa ko ci moom. commande nga après ma ne ko naa def loolu yàlla def nuyu bi jege ñu amoon quelques problèmes ñu ñu puusaat date bi yóbbu ko le 16 février je pense su ma juumul le 16 février boobu bi ñu ko bi ñu ko kale même pas 4 jours coon génn prison coon génn bi mu génnee mu xawoon a jege trop. après ñu gisee ma ne ko xam naa la nitu kàddu nga waxoon nga ma ne bu fekkee nga génn di nga ñëw mais teggin nañ la ko yónnil ay nit liñ la war a sargal trophée yeeg yëpp nañ la ko jox mu yónni ay nit yónni délégation ñu ñëw ñu jox la ñu jox ko trophée sagal sagal nag ay nit ñoo xam ne ci social la ñuy dox mm. ñu sagal leen nit ñoo ñooñu aussi nu jàppale ba ñu nit ñu mën a am même bu doon benn somme ndaw ñu jox ko kii bi association bi point fort du du du idées idée émission télé la d'accord parce que. émission l'on bu point fort émission chronique relation. si ouais ouais émission bu point fort. ñu dem ba ci bir ñu ne léegi dañuy def mouvement mom sama ben xarit buma né mouvement bi nañ ko tuddé mouvement bulletin nul ma lu bulletin nul mais ne ma mu expliqué ma li mu expliqué n'a pas de ko sax mais mu nekk lu am solo. pertinent. ma dem seeti ay kilifa yu mag mag ci réew mi waxtaan ak ñoom ñu waxtaan waxtaan ba léegi ma jox quatre personne ne leen man tur yi laa gis quatre personnes yëpp jox ma point fort. d'accord ne jëlal point fort. ça sonne bien à l'oreille aussi lu neex a jàpp la te lépp loo ci kii day day yomba dem ñu jël point fort. loolu moo indi mais du sama xalaat. amoon naa tur bi mais dama waxtaan ak ay nit.

développement social mais politique nak, lépp dañ ko tek ci politique. pourquoi politique est-ce qu'on ne peut pas développer sans faire la politique. non. mais politique mooy base de lépp tey émission bi ñu def ni sax politique la. comment parce que lépp bo xëyee sax joxe dépenses, sa jabar ji ngay joxe dépenses, mu dem di togg di def àdduna lépp politique la. Ah, mais mais dafa am ay patch. mais y a des façons. de faire de la politique. waaw loolu la tey moo tax ñun ñu indi développement ak social. développement ak social. am na ñoo xam ne seen politique yëpp nag dañuy politique pour am ay poste mais dañ koy teg ci xaste saaga euh, euh, wax leneen ñeneen teg ko ci ci sos ak fen ak leneen ak leneen ñeneen teg ko ci ci ci ci kenn ku ci rek daal ak na koy defee. yow da nga ko teg ci développement. ak social waaw. Euh, kañ nga lancé mouvement bi. man ko lancé mouvement bi taxaw na bu yàgg nag. mais conférence de presse bi ak lancement bi maa le 19 juin. juin le 19 bi bi gars yi defee seen liste seen liste ba pare. Mhm. législative bi ba ma xam liste yëpp déposé nañu ko ba pare. Mhm. ci tout aussi dama ah. parce que loolu aussi cas bu ñu war a traité man ak mhm. Euh, bi nga mouvement bi ba ban activité sociale nga defagum boo euh, c'est palpable quoi pour nit ñi ko parce que le 19 juin nga ko nous sommes ah hein? tay la tay la tay ci le. 27 août 27 août. 19 euh, juin ba 27 août bonne bonne bonne bonne bonne ban activité lañu gis ni mouvement point fort def na ko ci social. motax motax toujours sans bernard xarit daf may yey ci wax social yi ngay def nga nan do ko erreur la. doo koy filmer di ko génnee ñëpp di ci tek seen hmm. parce que man gëw ma di def social di di ko wane. waaw ah, d' accord mën nga ko bañ. man nga bañ a ah, mën nga bañ a wane waaw mais bañ a wane. maa ngi ñëw waaw social yi ngay def. faaw ñu gis ko waaw xaaral ah, maa ngi ñëw bi ma bi ma ñëwee le 19 juin bi ñu defee loolu ba pare takk tabaski moo jege si. Mhm. bi tabaski jog jege see ñi ñu war a dimbale dimbale nañ leen. ci mhm. maigre mooy yi xam nga tey ñun amuñu poste. Mhm. yoruñu yoruñu ay milliards. yoruñu ay millions. mais yéen a ngi sutur yàllaa ñuy dimbale. à travers ci lu ñu yàlla di dimbali nag moom la ñuy bokk ak askan wi. te yàlla aussi bu ñu buñ buñ ko ñaanee mu may ñu. te bu ñu bëggee jóg pour dimbali nit. donte jour bi ñu lay sax dinañ la dimbale te yàlla rek tax. amaana lu ñu añee sax duñ ko yor wala lu ñu reeree duñ ko yor. Mm-hmm. une fois de plus parce que dama bëgg muy leer damay bañ ñu ne peut-être am na ay yor na lu ne gàññ bu may di dee yoruma dara sag sag rek a fi nekk maintenant. santal yaa ngi sant waaw mais ci tabaski bi am na ñu ñu jàppale. Mm-hmm. ñii ñu ñu mën jox xar jox nañ leen ay xar. Mm-hmm. ñi ñu mëna jox njëgu soble jox nañ leen soble. Mm-hmm. ak yeneen ak yeneen accompagnement. parce que nit dëkk bi moo toll foo xam ne mënoo satisfaire nit à 100 pour cent. mais jël as tuut may nit sax dara la. comment nga. donc on s'est dit que ñi ñu mën a jàppale ñu jàppale ñu ñu fekk seen kër dimbale leen te loolu dañ ko doon def bien avant. d'accord avant moomu bi ñu paree ci loolu tamxarit bi mu ñëwee li ñu war a def def nañ ko ci tamxarit. Mm-hmm. may ngeen ay meew quoi. ay ginaar ay cere quoi yeneen ak yeneen def nañ ko. Magal Touba mi ngi waaj ñëw ñu ngi waxtaan ak benn kii de transport boo xam ne danañ mën a jël même bu dee benn bus wala ñaari bus tey euh, jox jox ko askan wi. ñu yóbbu leen. indiwaat mettre que disposition quoi. waaw ci seen disposition ñu yóbbu leen indiwaat leen. voilà avant avant à part loolu aussi euh, je pense actuellement fi ma xamante ak yow am na lu stocké. Mhm. ci ay ceeb. Mhm. duulin. Mhm. ak meew ak yu bëree bëri. mi ngi ñu denc. war na mot ay tonnes et dam dañ ko bëggoon a yóbbu depuis le 18 passé ci banlieue bi. mais dañoo ben ben ben auto oto. camion lañ fayoon pour mu ñëw yeb ko yóbbu ko mais bi ñuy communiqué heure bi ñu xaw a juum ci heure bi déggoowuñu donc ñoom it moment bi ñuy ñëw parewuñu woon te moment boobu mu amoon yeneen denrées yi doon ñëwaat aussi. ok yeneen denrées donc te ñoom li nga leen di fay de cher pour ñu transporter la yóbbul la wàccal la fii wàccal la fële wàccal la fële wàccal la xaalis la c'est de l'argent. mais c'est déjà stocké.

nit koo gis rek il faut ngay waxtaan ak ñi la jege. Mm-hmm. loo xam-xam-xam am na ku la gën a xam. Mm-hmm. muy góor muy jigéen. Mm-hmm. bul xeeb kenn muy mag muy ndaw muy xale. parce que ñun sunu sunu su man sama entourage. am na ay jigéen am na ay góor am na ay xale am na ay mag. bu wax jotee ñëpp la ñuy déglu comment nga te idée yi fi muy gën a jógee sax mooy ki nga yaakaar ne bu waxee tey nga jàpp ne kii lim la wax teguwul wala kii lim la wax mooy loolu. comprendre nga donc ba tax yooyu yëpp dañ koy sóor bi ñu waxee ma ne léegi fii loo fi bëgg a def ak loo fi bëgg a wax dañuy jàpp ne élection yi moo tax te dañ cee bëgg a bokk nañ bàyyi ba ñëpp def seen élection ba pare ñun ñu dem ça sera plus facile nag période boobu ñu dem rencontrer ji leaders yi waxtaan ak ñoom ñu xool kenn ku ci nekk tey lan mooy li nga bëgg ak tey boo demee assemblée nan ngay taxawale population beeg yooyu. Mm-hmm. yàlla def ñu waxtaan ci leader yu bari kenn ku ci nekk wax ñu ñu nit biñ nee ba ci biir xool ñu dem battre ji campagne. Mm-hmm. am ñu ñu jàppale ji. Mm-hmm. waxtaan ak ñoom. dañ ciy ñëw mais de façon nag boo xam ne conscientiser sénégalais. loolu dinañ ci ñëw xam nga Sénégal dafa toll foo xam ne léegi du du ay du ay moyen wala du xaalis mais ñi xam. conscient dëgg war nañ mëna jol sol sen dal conscientiser population bi surtout nak la jeunesse. d'accord surtout la jeunesse. parce que jeune yu dañ place di leen jox xaalis tay ngir ñu tok di lancer ay missile rek. Hmm. te def lo defuñu ko sen dom defuñu ko sen am di defuñu hmm. en tant que jeune ki lay def dafa fight ba yegsi fi mu yegsi ba am sañ-sañu di la def loolu yow it boo gëmoon sa bop di nga fight ba yegsi mom niveau bi mu yegsi te amaana mi ngi la ko def lo te ya ko upp njàng upp ko xel fop effectivement exact hmm. euh, dinaa ci ñëw ci campagne bi dina ci yow aussi ci ñi nga doon jàppale je vous rappelle toujours chers internautes que vous êtes en direct sur Yégle TV dans votre émission Rond-Point comme ni nga ko amale ki ma xam ni moom dalal tay muy un jeune engagé euh, koo xamni à chaque fois il a l'habitude de camper bu waxee ngeen naw ko waaye it bu toogee ngeen gis ko bu jëfee aussi ngeen naw ko tey moom laa dalal muy Ousmane Senghor Ousmane Senghor du président mouvement Point Fort Ousmane Senghor mouvement point fort Mon la ko mmh. rimee sax te mmh. <laughs> xam naa ne lii ci won xel ba tey mmh. mais maa di rappeler rek ni man ngeen di abonné à chaque fois man ngeen di activer cloche de notification bi également man ngeen di commenter bu leen fàtte également di partager li nga xam ni di euh, vidéo bi ngir ñëpp mën ko jot parce que ku dégg li ñuy waxtaan ni xam ni waxtaan la bo xam ni du pour mom du pour man mais li ci ëpp njëriñ muy pour askan bi nga xam ni moom la fi nekkal mais également man aussi bu ma fi toogee du pour man ndaxte bu doon man rek dama laa toog sama kër moom it bu doon moom rek la mën a toog këram mais jàpp ni am am na lu mu war a mën a indil askan bi jàpp ni aussi man jàpp ni am na lu mu war a mën a fésal ngir askan bi jot si moo war a ñu toog fi mën a moom jàkkaarloo Ousmane ci biir campagne yi dama gis nga def benn tournée tournée nationale euh, dafa am parti politique boo relié ko doon jàppale ci élection législative yi ou bien lan moo doon but bi nga xam ne moo tax nga doon def tournée nationale soit ñaar la am nga koo relié doon ko jàppale ci PEC wala danga nga doon jéem a tibb tànk ngir marqué sa empreinte ngir boo mënee déposer sa candidature. ra mais li ñu naan dof bu yegg wax bu yegg dofa ko moom. xam nga tey non non xaaral xam nga tey. population ba ma doon fekki. tollu ma woon pour naan leen voter leen diw walla ànd leen ak diw. loolu ku koy def Sénégal dépassé na foofu. comme jóg ni tey rek non man président mouvement point fort maa ngi naan voter leen diw. mais tu te pour qui. yow yaay kan ba ne Sénégal non non non. mais wa mais mais Sénégal dafa parfois mën nga xam lu sa nawlé xamul. d'accord mën nga yegg lu sa nawlé yegul nga dem tok waxtaan ak mom conscientiser ko. Hmm. donc conscient xam nga tay sénégalais il faut ñu baña a ci di leen conscientiser parce que Sénégal dafa toll foo xam ne nañu xool ëllëg ci yan loxo lañ koy teg nañu xool ëllëg. ci yan loxo lañ koy tek même bu fi dara amul sax jamm amna fi jamm ak salam amna senegal donc ngala buñu yak lolu mais tay dafa am tay ay leader yu bari yo xamne fitna rek fitna ñoom japp nañ ne lepp fitna la wala lepp ci xasse la lepp ci saga la lepp lolu dañ ko wara éviter. non non man man sumay politique man man damay xam nga wax ni ba tey man la man. Mhm. wala déggoo man la suma. wala mu dégg wa mais loolu waxtaan ak ak kii wi askan wi la waxtaan ak askan wi la comme comprendre nga hmm. parce que réew mi moo toll foofu hmm. xam nga man tey gis nga naa la xamal leen nag de Sénégal gi am na ñoo xam ne danga parfois ngay wax ak nit sax ci loo xam ne moom mi toog moo la ko gën a xam ne patt bàyyi la ci biir te ñooñu danoo bari ci réew mi te gis nga ñiy fal ak ñiy folli doo gis mukk ñuy def ay mars wala mu di no seeni carte d'identité lañ yore yëpp. bu élection jotee dañuy dem voter dugg ci urne bi voter kañ war a voter génn. xoolal du ñu xuloo du ñu kaas seen jasneer la ñuy sol parfum ba saf saf dem. pot mais dafa am loo xam ne nangu woo ci xuus. waaw non maa ngi ñëw. muy tourner yi nga doon def. waaw mais kan nga doon jàppale ci élection. maa ngi ñëw parce que man dama la ne mënuma nangu ni Ousmane mënuma nangu point fort lancé euh, le 19 juin. waaw euh, presque juste après. Mm-hmm. la campagne commencé. waaw Ousmane def tournée nationale te Ousmane moo toog fii nii point fort amagul mi ngi sant tournée nationale yooyu budget la. budget la Ousmane am na ku ne ci ginnaawam. am na ku mu doon jàppale mais tey tey xanaa xamoo Sénégal dafa bëri ay nit ñoo xam ne bëgguñoo fës. bëgguñu kenn xam seen lenn te ñu toog am lu leen yàlla may. mais ku def di xool di xool tey jeune waxaar wax waxaar di xool jeunes yu mel ni man <laughs> jeunes yu mel ni man ñu ma kaay <laughs> Ousmane kaay ma ñu mel ne ma ah bàyyi ñu jàppale la ci lii. boo ci amee fukki xanaa affaire yi méttiwul de. kan nga doon jappalé ci législative yi. waaye déggoo ma xanaa sénégalais yi laa ñoom laa doon ci législative candidat nga doon jappalé sénégalais la laa jappalé ci législative lool hmm. loolu kay loolu kay wax wax nag gënu ko lèr parce que ñima dem mosum déwuma ma fenn leen voté leen Macky Sall wala mu voter len yéwi wala mu voter leen dama len né réew mi fu mu toll kenn ku ci nek li nane la responsabilité de tout un chacun est engagé kenn ku ci nek sa responsabilité dafa ne ci biir. parce que tey Sénégal ba mu nekkee Sénégal ba léegi ay politiciens rek a fi nekk di boo leen ma falee dinaa leen néeg lii boo leen ma falee dinaa leen construire lii boo leen ma falee lii loolu dañ ko dépassé. donc da nga doon tibb tànk. tibbuma tànk kenn sénégalais yi boo waxee ñoom ñoom ñooy xool après kañ ñu dem waxal génnal foofu ñu jàll feneen. donc da doon teg xel.

day liggéey ci social euh, est-ce que inondation bi nga xam ni am na ci banlieue boobu loolu point fort am na ci ay idées yoo xam ni pare na pour jàppale ko euh, ñi nga xam ni ñoo nekk ci mën mbënd mi wala déet lu si mel ay moto pompe ou bien. ah moto pompe moom joxe guñ ko. ok te dafa am loo xam ne liggéeyu ku ci nekk da nga am sa liggéey. Hmm. gox bu ci nekk dafa am maire. Hmm. tey bu géejawaay amee ndox fa mu am ndox géejawaay am na euh, golf am na mairie mairu golf sud meeru euh, meeru waxinaan limsaat mairu fale mu am meeru ville bi ñooñu ñëpp buñ boole seen doole génnee ay motopompe mën nañ jàppale senegal yi mm-hmm. tey man ci li ma mën a ñëw mooy fekk li nga xam ne ñii buñ defee lii man ma def la ca des mm-hmm. bu leen jàppalee ci côté bii man ma jàpp ca la ca des. Mm-hmm. jàpp ca la ca des nag du loo xam ne sama poos lay jóge mm-hmm. dafa am ñu may jàppale ñoo xam ne damay waxtaan ak ñoom ñu ñëw dimbali ma ma dem yóbbul askan wi. Mm-hmm. état sax ay partenaires dañu jógee fële ñëw dimbali ko mu dimbali askan wi. autoroute à péage Ila Touba bii ay partenaires ñoo ñëw liggéey ko ak Sénégal ñu dem. donc lépp loo gis rek partenariat la. donc man suma ñëwé donc yow bla ngay def dañuy xaar buñu def fa paré nga soo koy def bañ bañan def ba ñu war def def fa paré nga wara def non xaaruma man ci lima ma d'accord ci sama doole sama doole fam famu fam fa sama doole euh, euh, tollol mm-hmm. mën na def lolu fa sama doole ag, wala fam yem amna luma mën amna luma lu ma mënul mm-hmm. am def mm-hmm. amna luma warta def

pourquoi parce que sénégalais sénégalais léegi présidents may benn un an deux ans trois ans wala ay un mandat ñaari mandat mm. parce que nous opposition bi ñoo créé Les mm. sénégalais yi wóolu mm. donc devoir de preuve ak mot mot sénégalais kat confiance buñ ko matalul xolal jaru sax ñuy waccat di dugg ci terrain bi parce que sénégalais yi léegi danoo yeewu comment nga parce que fi réew mi toll mooy li ma wax léegi léegi rek toog fi tey di am benn mandat wala néeg nii loolu c'est très normal seen seen résultat yi ñu am nii c'est très normal ñu am ko c'est très normal parce que sénégalais dañ lay jox ba pare dem toogaat croiser les bras boo deful lu positif wala boo deful ñoom li li tax ñu fal la wala li tax ñu dénk la. am nañ fulla gu mat sëkk. prochaine élection bu ñëwee ñu yëkkati la. joxaat ñeneen. fan la réew mi toll dinañ dem ba léegi xool ay campagne ak ay sonn nii nii nii dootul amati ay parce que jeunesse bi am na ma parti boo xam ne yeewu nañu. Mm-hmm. ñeneen yi lañu war a waxal conscientiser leen ñu jóg xam ne affaire bi xam nga man damay dégg naan politique bi lu ci ëpp léegi ci réseau sociaux yi la mais réseaux sociaux mal nécessaire la. am na yu ci baax am na yu ci bon mënoo jël ay jeunes nag jox leen réseau sociaux yi ñu ciy def yi ci bon tey kilifa yi am na kilifa yoo xam ne ñemeetu ñoo génn wax parce que da ngay wax fi ñu toog la ñu toog yore seen téléphone commenté xool def ay commentaires yu saf sap wala ñu saaga la wala ñu xas la ci wala ñu wax la ci loo xam ne tey sa njaboot sax buñ ko xoolee xam nga neexul ci xol redresser Sénégal moo gën a yomb waaye tamit moo gën a métti pour nga def ko il faut nga gumba tëxloo tankam lu lu bari parce que danañ la dekkal fo dekkul danañ la saga danañ la khas danañ la wax lu ne man ma toog ak kilifa gu mag fan kilifa diine la dane man dama am njabot duma genn mok di wax bu dekk bi don tak fee lay tok sama kurus la yor di ñaan parce que bu genné wax bo waxé deug ñu ñu saga la leneen wax la leneen kon noy def dekk bi tollu fofu

pare na pour doon candidat ci élection yi ou pare na pour am candidat bu mu jàppale ci élection yi. waaw xam nga bu dee candidat bu ñu mën na ne mais xam nga élection présidentielle dafa am nu muy doxee. Mm-hmm. moo tax man la ñun li ñu gëm nekkul sax ay poste wala leneen ak leneen ak leneen mm-hmm. liggéey rek moo nu ñor. Mm-hmm. te liggéey boobu moo moo moo ëpp doole poste xam nga poste moom buñ la ko joxee. tôt ou tard dañ lay fal tey bu subaa ñu folli la. bu la ko askan wi joxee da fal. bu jeexee nga dem wala mu wala mu folli la bu la décret falee décret mën na laa fal huit heures décret wàccee la dix-neuf heures donc nit ki da ngay libre bu li nga war a wax nga wax ko mais Sénégal kuñ fi jox post li li ñu naan euh, ku ëmb sab sànqal ëmb sab sutura li ko neex rek ngay wax tey élection présidentielle yi di ñëw dana fekk xam nga élection présidentielle du caaxaan nekkul ne da ngay sa mouvement ci àll ba rek naan def naa lii def naa lee élection présidentielle day ñëw damay dem non dafa am ay ay normes ak ay ay charte parce que pour nga nekk candidat élection pré il faut nga am benn âge bi tey élection présidentielle yi di dana fekk sa âge boobu duñ ko amagum. comprendre nga donc kon ñun mënuñ cee bokk mais nag dinañ liggéey liggéey boo xam ne tey ci réew balaa élection yooyu di ñëw danañ bokk ci ñi nga xam ne ku ñu àndal ñu fal la ku ñu àndalul doo falu Hmm. barke xaadimal Moustapha. billaahi. d'ici 2024. maa maa la ko wax parce que ñi ngi koy liggéey. ñu ngi koy liggéey te balaa bopp dana mot sëkk. ndeysaan ah. donc mooy li ma doon wax donc tibb tànk bi yaakaar naa ne kon mi ngi def effet. <laughs> xaw ma xaw ma. li ma la wax sànq nga wax ko faaw ko. non xam nga li ngay def sa rôle la mais man li ma la wax gëm ko. waaw ah, d'accord gëm naa li nga wax mais dama ne aussi li ma la wax nii. il faut nga bàyyi ci xel que ni euh, tibb tànk bi nga doon tibb tànk ak maanaam teg xel bi nga doon teg xel dafa mel ni mi ngi mu ngi def effet de corps. tibb tànk xam nga ñi naan ay damay tibb tànk ñooñu seen intérêt moo leen tax a jóg. yow lu la jox tax a jóg intérêt. sénégalais. d'accord intérêt sénégalais. d'accord booy tibbee tànk ta tànk ka ngay tibb da nga ko bëgg a yàqal. leader politique nga jot a ba nga lancé mouvement bi ak léegi. bëri na bëri na ku ci mel ni kan. bëri na Ousmane Sonko gisante lu mu la wax. bari na déggu man la bari na. waaw mais xam naa ni bëri na mais dama ci tànn kenn. waaw mais bëri na ngeen gisante mu la wax. bëri na bari na <laughs> daje na ak mouvement daje na ay direct ay ay kii yu bëri am na ci yoo xam ne sax su su may dem man kese maay dem du ma wax kenn dara. jot nga dem pale wala dem demagoo palais. pale palais li ma fa dem bari na. <laughs> Eh, non pas Ousmane Senghor. dem palais mais en tant qu'Ousmane Senghor président du mouvement Point Fort bi mu lancé mouvement bi le 19 juin ak léegi jot na dem palais pour yóbbu mouvement Point Fort palais wala pour lan pour toog Macky Sall quand même waxtaan parce que y a ne bi nga kii am nga ay leader politique yoo dajal donc c'est normal aussi nga dajeeg njiitu réew mi toog waxtaan ak moom est ce que soxla naa des gens qui mi soxla est-ce que non dama la est-ce que soxla n'a ko xam nga tey booy dem ci njiitu mu def. xam nga ñàkk xam moo tax ma laaj xam nga tey.

xam nga àdduna lépp loo gis dafa am charte te lépp loo gis dafa am yoon nit ñi nag dañuy tegg yoon da ngay gis ku kere mouvement am fële rek commencé saaga wala mu commencé xaste pour opposition bi woo la wala pour président woo la nga dem ñu jox la xaalis nga ñëw toog. non mais opposition woo na la. man je préfère rencontrer opposition que rencontrer parti pouvoir. yaa ñëw de.

un intérêt personnel pour Ousmane Senghor mais j'avoue que bien Ousmane Senghor bien président de la République euh, tu trouves point fort de président de la République donc je pense que c'est normal pour Guinée Ousmane Senghor. vais pose la bonne question. non la question. non question mais question. Je mais la question. directeur la est-ce que da génnaat ñëwaat ci ci gars yëpp ne leen directeur de woo na ma démb li lañ wax maa ngi moom ci ci liggéey bi fii ak rek da nga koy def. mais lii. lii non non dama la posé da koy def. mais lii entreprise privée la. boo ma tontee. ku ci ne maa maa ngi ñëw nii. Hmm. fii entreprise privée la ku fi toog sa intérêt personnel la fi taxaw. Ah, waaw pas intérêt sénégal yi quand you know parce que bu weer dee yow dañuy fay nga yóbbu sa kër mais bi mouvement point fort dañ ko lancé pour intérêt sénégalais donc bu génnee waxtaan ak président de la république c'est normal mu toog ni sénégalais président de la république wala mu convoquer mouvement bi yëpp ñu toog mu leen président de la république wax na ma li ak li ci tour point fort raison pour laquelle ma laj laaj xamna dal naa buy taw kenn du béré buy taw kenn du béré ci liggéey métti rek waaw moo tax nag bëgguma sama digg métti mais munoo wax a wax ba ma ne la kilifa njiitum réew mm-hmm. wax ma dégg mu wax ma dégg ma toog fii ci yëgle TV naan la bi ñu waxee lii lañ wax léeg-léeg la Ousmane Sonko lu mu la wax. waaye dégg ku leen gis naa Sonko. gisante wu mais ku la ko wax. non gisante wu leen da nga da ngaa dégg man la gis naa mais da ngaa dégg gis naa ko. man man maay posé question. waaw mais déggoo ma xanaa bàyyil ba ma ne la gis naa Sonko wax na ma wax naa ko. gisante ngeen wala gisante wu leen xaw ma. aja ah, ñu bàyyi la. <laughs> waaw <laughs> daanaka ñu ngi nii waxtu baa ngi xoj. Mhm. yaakaar naa ne am nga loo bëggoon te waxoo ko li ma lim xam nga tey li ñu naan li duuf ci nag li xëjul ci cin li mhm. te réew mi daal réew la boo xam ne ku ci nekk war nga mën a jóg taxaw pour jàppale sa réew. Mm. Sénégal moo toll foo xam ne euh, kenn ku ci nekk dafa war a jóg pour jàppale ko. jàppale gi nag du ci xaalis du ci du ci du ci du ci jàppale gi waxtaan la. Mm-hmm. ak tamit euh, xool fii métti ñun ñëpp ñu ànd ci. jéem a xool kenn ku ci nekk nan ngay nan ngay nan ngay ñëwee apporter sa soutien. parce que réew mi moo toll foofu di di di ñaax aussi samay moroom parce que jeune laa am naa samay moroom yoo xam ay jeune lañu ñu ngi ci réew mi di di ñafe di xëy subaak ngoon guddeeg bëccëg tey demal tey fu mel ni marché sàndaga nga fekk fa ay jeune ñuy xëy suba ba jant soo amaana bu ñuy ñibbi seen kër junni la ñuy ñibbiwaale wala moins de junni te loolu ñuy ñibbiwaale tey bu ñu demee bokk ko seeni seen njaboot. bokk ak seen i wayjur bokk ak seen i famille seen i am di jàmm tey réew mi toll foo xam ne tey da ngay gis benn nit en 2012 ñu ne la kii mun toon a génnee sax un million ren ñu ne la minti milliardaire la donc yërmande gi war a dox ci réew mi doxu fi te ku fi nekk tey bu ñu la joxee poste la ngay njëkk a xool mooy sa bopp sa famille yore sa 4x4 taal sa kilim tente ko. di jaay di n'importe quoi ci dëkk bi dafa yoo xam ne vraiment dafa rafetatu te Sénégal tamit ñëpp war a yeewu dafa jot ñu xool naka la ñuy dimbalante suñu biir parce que ku mel ni maam Abdou Aziz baax ay waxam mi ngi fi ba léegi ku ci mel ni euh, Serigne Touba bind na fi baax njabootam wax nañu ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen donc repère amul manqué wuñ ko manqué wuñu ay repère bu fekkee dañoo bëgg a baax am nañu ay royukaay yu mat sëkk pour baax bu fekkee dañoo bëgg réew mi jëm kanam yërmande gi war na fee mën a nekk réewu teraanga ji ñuy bàkkee dañ ko war a gën a dañoo war a formate Sénégal xam nga formate mise à jour mise à jour ko ba mu baax taxaw nag xam ne njiitum réew mi fi nekk dañ ko war a mën a jàppale dimbale ko pour moom it mu dimbale Sénégalais yi opposition bi nga xam ne tamit ñoo fi ne ñu bàyyi leen bu ñu amee lu leen naqari ñu génn manifesté wu wax ko parce que réew mi moo toll foofu li il faut ñu jàppalante yërëmanan yërëm yërë yërëm yërmande gi law tey da ngay xool dañ leen naan ñi am 60 ans wala 70 ans ñoo ne ci kaw ñun jeunesse bi ñu ne fii di rayante suñu biir yéenante wuñ jàmm du ñu jàppalante tey ñemewoo wax sax mun nga dem ci mbooloo doo ñeme wax parce que boo waxee ñu transformé say wax nga wax ñu génne say wax enregistré la génnee sa audio nga nekk ak nit en intimité muy góor muy jigéen nga génnee ko yàq ko kee toog fee divulgué fële kee toog fële mu mel ni tey ñi ñu gën a jox importance mooy nit ñi saaga nit ñi ñi nga xam ne ñoo fi nekk di yàq réew mi ñoom ñooy star léegi ci réew mi alors ko loolu lañ ko war a dàkkal ñu xool ñu xoolaat sunu bopp xam ne Sénégal dëkk bu ndaw la Mali gii rek moo ëpp Sénégal Mali gii ni nii moo gën a rëy Sénégal tey ñoom ñëpp ay mbokk lañu bambara yi boo demee fi ñoom ñoom ñooy nekk di ànd di wuti liggéey noo def yëpp sénégalais da ngay dajeeg sa moroomu sénégalais Europe sax xam nga danga koy minimiser di ko jaay ne maa la fi gën a dëkk wala yeneen ak yeneen ak yeneen yeneen loolu rafetul il est temps que ñu ñu ñu consci ñu conscient xam ne bu nu lépp fii lañ koy ba merci kuy ñëw indi woo dara boo demee doo yóbbu dara. donc maa ngi sant ñëpp. di gërëm ñëpp di la gërëm di gërëm personnel wu yëgle yëgle TV euh, di gërëm sénégalais yi naan leen euh, fii quelque temps dina am loo xam ne dinañ ko def ak waa yëgle TV ànd ak yéen joxe quelque denrée màggal gi bu ñu waree mën a def dara nañ def na am lu mën a def bu ñu amee aussi yeneen yu ñu war a mën a def pour population beeg askan wi ñu def ko may sant ñëpp di gërëm ñëpp di la sant.